seetal ci ndajeem conseil ba démb fale na wax ñoom ministre yi na leen faa bëgg ngeen waajal seen bopp ndax balaa dimanche bi di ñëw nga xam ne faa ci war a tukki faa bëgg a àndi ak coppite ci gouvernement bi xam ñu génn xam ñu dugg ci ay ministre l'observateur na man nag fay laajte Amadou Ba nag moom fay génn ngir mën a waajal campagne am wala fay des di nekk premier ministre wala fajëri yéen kaay na leen en tout cas Cheikh moom njiitu mi fal na ko moo remplacé Mame Boye Diao Lat Diop it football nañ ko kajji ca Lonaas laa si yéen kaay na ko Amadou Ba nag fi mu toll nii fa yu njëkk carte gi jëm ci wata 2024 yi fa xam ñoo xam ne nekkuñ ci ay parti politique di ay sénégalais ñu bëri ñoo xam ne ñooy fal te fi mu ni fañ na tekk tekkaaral ku ñu woteel rek nga jël ndam li de wal fajir yéene kaay moo ñu ko xamal turbine yéene kaay na ko man dafay laajte Amadou Ba candidat APR yi ana lañ war a campagne maanaam lan la ñuy wax askan wi ngir ñu woteel leen yaaw fa ngay xool ak liñ seetlu ci réew mi jamono ji maal gouvernance ak ay tooxi doonu yu mag te bëri nag ak def lu na weng te kenn du la def dara ba tey yéene kaay bi ne benn bokk yaakaar sax problème bi njëkk a am mooy xam ne moo ko daan gañe fi mu nii dañ koo nar ñàkk ci wote yi di ñëw ah, yaaw seetal fuuta ñoo ko daan gañe fi mu toll nii Abdoulaye Daouda Diallo bu leen wanee ginnaaw mooy ne duñ ko gañe jolof ñoo ko daan gañe Haalingu Njaay léegi fale na wan ginnaaw fulaadu Mamboy Jaawa wan na leen ginnaaw kon naru ñoo baax le si du quotidien na ko voilà gis nga Abdoulaye Daouda Diallo boobu fi mu toll nii moo teree nelaw njiit réew Macky Sall maanaam mi ngi def lépp lu mu mën moom njiit réew mi ngir Abdoulaye Daouda Diallo ñëw ànd ak Amadou Ba ci élection yi di ñëw ba tax sax fi mu panu secours bu mujj bi laas yéen a kaay ne man kay fay laaj ci Abdoulaye Daouda Diallo lan moo tax tekkiwul ndombal tànkam su fekkente ne fay bàyyi benno wala boog lu fa tasaare bennoo de Aly Ngouille Ndiaye Mame Boye Diao Abdoulaye Daouda Diallo ñu ñëpp nañ gannaaw bennoo léegi sax fay laaj ca ndax bun Abdallah Dionne moom itamit du bàyyi bennoo ah faa seetlu na njiitare Macky Sall fa koo dalal waaye seen waxtaan wa jur dara bés bi yéen a kaay moom fa xëy amal portrait di ñu xamal kan mooy bun Abdallah Dionne Le Soleil yéen moom it fa xëy di ñu xamal dëgg dëgg Amadou Ba mooy kan la dépêche yéen kaay ne Boun Abdallah bi ko njiit réew Macky Sall wax na ko ñeenti dëggam la neen luy dëgg mooy ne PDS wote 2024 yii seeni mbir fa nar a taq suuf de ayaw seetal PDS seen candidat bi Karim Wade candidat bu kenn mënta gis la dégg rek te fi mu ni parti ba kenn mënul laa wax kañ la Karim Wade di ñëw Sénégal man ma ñëw ci kàddu yi nga xam ne Thierno Alassane Sall yëkkati na ko fa xam le ne moom candidat l 2024 fay laaj réew mi ca info yéen kaay ma ngay wax moom yéene bi mu am programme bi mu am ngir suqali réewum Sénégal ci fànn yu bari keneen ku samp ndëndëm laaj réew mi 2024 du kenn ku may Barham Thiam moo nekkoon coordonnateur u AFP bu Moustapha Niass ca réewum Canada laa si yéene kaay ne kii nga xam ne élément bu Moustapha Niass la woon fa taxawal parti bu ñuy wax PC parti conservateur yi nim nar a suqali réewum Sénégal ak programme ba mu xam léppañ ca biir yéene kaay ba leer nen lu leer ba yegg ca naññi ja mooy ne réewum Sénégal ay inspecteur impôt domaine ñoo bëgg a réew mi Abdoulaye Daouda Diallo Ousmane Sonko Mame Boye Diao Diawo ñii ak ñeneen ay inspecteur impôt domaine leen yor yor yéen a kaay na ko faalee xamal leen de ki nga tudd noonu ñuy wax Ousmane Sonko candidat bu mën a taxaw ci kanamam su bokkee ci wote yi premier tour ci lay gàddu ndam li Diallo Diop vice président patriote yi moo ko wax ca yéen a kaay ba ba tey yor yor yéen kaay fa xamal ne farandoori Ousmane Sonko yi feem bu bees bi ñu génnee muy woy woowu nga xam ne fi mu toll ni fay lëmbee stade football yi ak mboolem fu mbooloo di muy Sonko namm naa la yéen a kaay na woy woowu de moo mu toll kilifa réew mi l'observateur na ko moom nga xam ne fi mu toll nii amala tut benn yëngute ndax ño ngi ko téye ma tax na opposition bi seeni làmp fa fay ah Sonko moo ko doon taal di te nekkatu fi la mu nekk moom Mimi Touré mooy fay xamal tournée réewum Sénégal jamono ji ma nga ca diwaanu Matam ma ngay wax yéenam ca suqali diwaan ba lépp ngir waajal 2024 turbine yéene kaay moo ñu ko xamal la mu ñu xamal moom la Soleil yéene kaay mooy njiit réew Macky fa sàkk ci gouvernement bi ñu wane document bi jëm ci lépp loo xam ne def nañ ko ci wàllu njàng mi njàngale mi te def lépp baax li baaxut nag ba pare andi ak mbetteel ci sénégalais yu bëri mooy assemblée nationale bii nga xam ne fañ doon wax naan fay andi coppiteeg doxalin bu yees ak waaye liñ ci seetlu daal mooy député yu këttalantey xeex ak ak yu ñàkk fayda les si ko kaay ne benn at nag bi ñu sampee assemblée bi ak léegi l'évidence yéen kaay moom fa xëy di ñu xamal na béykat ya nekk ca diiwaanu Kaolack Ndangaan Fatick Kaffrine fa ñuy sàkku ne docteur Macoumba Diouf moom lañ bëgg mu remplacer Aly Ngouille ci jëwriñ ju ñu dénk wàlluk mbay mi ka ñu dénk grand train du Sénégal muy Samba Ndiaye le mandat yéen kaay mag ñuy xamal ndaje mu mag bu kàngamu réewu Afrique yi doon xamal moo nekkoon invité surprise ba xamal fa taxawaay bu googu l'observateur fa ñoo xamal ne kilifay réew mi fa ñoo jël dogal jëmale ko ci TikTok les si ko yéen kaay xamal ne xay bandi daal takk dere fa demoon ngir jàpp seen chef ba ñu taxaw xeex ñàkkanteeg takk dere ngir ñu bañ a jàpp seen chef ba ba fañ ko mujj bàyyi terewut takk dere jàpp nañ keneen yi yaa nga amee ca Fass Mbaaw waa grand place yi ne xamal ne xalifa général des mourides sëriñ Muntaxa Mbàkke fa yëkkati lu toll ci téeméeri million dimbalee ko réewu Maroc rawatina ña nga xam ne seen kër ya fa daanu seen kaw ginnaaw bu fa ne ko sëñ Abdou Kay fa manqué sénégalais yi ndax taxawaayam bu rafet bi mu amoon ci réew mi ak diine ji diinay chrétien nag ki leen jiite muy pape François fa dalal jaaña njaay vox populi ne pape bi fa félicité Sénégal ci seen coupe d'Afrique bi ñu jëloon man ma jël le quotidien yéen kaay ngir wax leen baneen musiba naaru laay yaaw seetal fa xam baneen taax mu daanu ci kaw aw askan ba benn doomu aadama doxee fa faatu ñàkk bakkanam allah yëf yaa nga amee ca golfu bâtiment immeuble kër yi daanu fi mu toll ni ci kaw askan wi ci Sénégal